noonu tey ci li nga xam ne mooy open press Boy Niang muy bésu lundi tey waaye suba xaar ji ci li nga xam ne mooy bésu ki nga xam ne mooy Balla gay 2 démb face à ba ngeen gisoon mu am fa nga xam ne mooy ca TFM ndeysaan seen face à ba ki nga xam ne mooy Boy ñaa mu jilu woon ñëw waaye ci kanam tuuti dinañ xam li tax li ngeen kontaan ci Gaston production moo woote nee naa leen kookoy le Don King de la lutte ndeysaan lamb bi ñu diggante ba diggante dañ ko dem woowi ne ko Gaston ñëwaatal nee naa leen lamb bi mu diggante ba diggante dañ ko Gaston kaay Gaston ñëw defar li nga xam ne mooy lamb moom Gaston xaali meeñ bàyyi bakkan meeñ ndeysaan moom Louga Louga Louga nee naa la kooku njàmbur njàmbur lu mu laalul baaxul moom Gaston Mbengue doomu Gaston Mbengue ba doo doomu xaali Mbengue ba ndeysaan te ñu ñëw jëppoon Boy Niang ndeysaan Seeri Cheikh ña woy noonu ma ne ko Seeri Cheikh woy foofu moo téye li nga xam ne mooy war a ji mu ngi aca mu ngi noonu li nga xam ne mooy direct open press Boy Niang Boy Niang nee naa leen satu Serigne Cheikh Yirim Ndumbaan la ndeysaan kookooy cappaacoli ba bala ba koddu maane maa may sa xari ma daawru ngewel kooku cappaacoli la moo ngi noonu ba léegi moom satu Cheikh Yirim Ndumbaan boobu dugg seegul moom Boy Niang ndeysaan nee naa xool leen stade bi ni mu taaroo ñëpp ñu ne tekk di xaar ki nga xam ne mooy booy Niang nee naa leen mu ngi noonu Cheikh Yérim Ndoumane bi moom la ñuy xaar ba tey dugg seegu ndeykat woykat yaa ngay woy tëggkat yaa ngay tëgg waxkat yaa ngay wax mu ngi noonu tey ñu gis suuf Pape waa Pikine tey dañoo sévère lépp jàmm Fapal Balde. naka mu. naa fi lépp jàmm. nu ngeen dundee bés bi ak organisation. waaw mais kontaan ak organisation bu rafet rek. waaw. di xaar di xaar mbër mi. ñëw nga xoola ko boobu bopp yow. ma xoolal ko sa waaw boo ko xoolee rek di fan yii gis nga Balla Gaye démb bi nga gisee Balla Gaye tiito. non non. ñoo fii xale. da ngeen koo magee quatre ans. ah. da nga ñoo magee quatre ans. saa saa teel rek moo ñu ah. Bombardier moom ak Balla Gaye daan ko. mais bi bokkul ak boobu. Balla day nappandi rek nekk ci saali. musculé wu ba sa ak ba suba ba si méegoo bokkul. kon yéen. boo ñaa ñu ne boo ñaa tànk yi baaxul wala kaw gi amul doole. non non ñun amuñu réew. ko Pape Seck laaj fu mi doon attaqué laaj ko Sa doon attaqué laaj leen bu bu mu taxaw Balla Balla bu mu taxaw bu taxawoo bu ko Boy Niang daanee ci taxawam da koy humilier moom na ñëw bu ñëwee mooy gën a neex Balla bu taxawee boo Niang fekk ko da koy duma daan ko boobaa dañ naan Balla mi daa ragal Boy Niang nañ xoolal bu mu bàyyee mën a nam na ñëw. mu ñëw attaqué bu ñëw attaqué Boy Niang na fa fekkoon attaque bu garaaw na laaj a xam na laaj Sa Thiès rax. mais Balla du Sa Thiès de. Sa Thiès rek na xale daan egsi ay daata ko bal papa nuyu naa ziar bu baax maa ngi lay ziar ñoo ngi lay doole ziar noo dundee bés waay waaj rek yàlla na yàlla may ndam Pikine gépp ñu ànd ci ginnaaw Boy Niang ànd ak Thierno Ndong Ba mu baax boobu nga xam ni Pikine gépp ku mu àndal nga jël ndam yàlla na yàlla defal cat ànd ak Ablaye Timbo ànd ak Isaka Diop ànd ak suñuy mbokk di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ngay dégg màgget am na problème. nee na Balla am na problème waaye ñu xuusaat dellu siwaat fii ndeysaan fekk sunu naataango waa kër Boy Niang yaa ngi noonu nuyu naa. soxna si maa ngi lay waaw ñu ngi bu wér. dayoo bés bi. waaw ñun organisation xam nga maanaam jiinal ma mel ndaw Tyson muy bëree tey sunu rakk yi bëree tey muy bëree ñun ñëpp dañuy ñëw jàpp ci combat bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. xale bu am jom xale bu baax bu bëgg ay magi géwalam nag ñun amuñu lu dul askanu géwal di ngeen gis lu leen musul gis ci àdduna bi incha allah. mais xam ngeen dayo combat xam ngeen. dayo combat bi ñun gis nañu combat bu ne. combat bu ne gis nañu ko. ngeen am de moo Balla Balla Gaye moo woon ak bii bokkul de kii xa kii muy xale. Balla Gaye bi mu bëre ak yeneen mbëri fu mu tolloon kii fu mu toll ana Sa nu ko booy bi def. ah loolu day dara. Ah. mais Sa Thiès moo bii moo gën a yombu nag maa la ko wax bii moo gën a yombu ay géwél loolu. looy wax ni mais Balla mageewul. Euh, booy ñaalu soxna si bii moo gën a yomb ku toll sa jamono dox ko booy bi daa toll ci jamonoom da koy dox. mais booy ñaar li muy signature est ko ah! gëm-gëmam la rek xale la da cay toll mu nekk gëm-gëmam li mu woote da koo gëm te koy wane incha allah yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu guy ci barke sëñ Babacar Si jërëjëf fay naa la yaay booy yàlla yàlla nangu waaw mbégte rek ak doon ay Pikinois nag loolu rek moo ñu fi am doon ay Pikinois ak mbég lool muy suñu rak di suñu booy di jantal booy boo xam ne bu xewlee jaaru nañu ñëw bokk ak ñoom bis waa mais lamb waa xam nga ñun ay figurant lañ mais moom Boy Niang gëm-gëm moo ko andi fii mu nekk moo ko ay moromam ñoo départandoo woon fii mu agsi nii gëm-gëm moo ko fi andi na ni nit ñi jox tuuti nag bu doon 1 pour cent am na ko gàtt gàtt fii mu ko dara. joxuloo ko dara. joxuma ko dara. ah. dama mu lakk sa daay de fii mu agsi nii moo ko ay moromam moo ko génération am gàtt gàtt ñu ma treize ñoo départandoo ci làmb fii mu agsi nii tey njàmbaaram ak jomom ak fonk ay waajuram moo ko fi andi ginnaaw yàlla waaw. mais gone géejawaay gi ku xam-xam ne day bëre day attaqué du taxaw te ki xam ne mooy booy ñaar tamit gone pikin moom tamit day taxaw dégg. Balla Gaye bari na lum tële de boo ko faralee nag mën nga koo def lépp mën nga koo jox ñaari naqar yi mu am ci àdduna fii la ko amee biir pikin ñaari naqaru lamb yi mu am ci biir Pikine la ko amee même jëm yi rek même jëm même jëmm yi ñoo coiffé woon jëmm yooyu ba tax yàlla may leen ndam ñu ngi ko koy ñaanal yàlla suñu borom te rafet nañ ci njor lamb nag xam nga lu ma ciy dolli papa yi kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko pour être champion il faut être compétent te booy bi ku ne xam na jàmbaar dëgg la ci lamb loolu ku ne xam na ko waaw jàmbaar la ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla may ko ndam bu seddu guy waaw yàlla ah, man de fu mu nekk damay bàyyi bu paase rek. waaw. kon daa loo denc. ah loolu ma denc. li nga denc doo ko wax. man lamb yëpp lamb ji laa doon xaar. lamb bi nga doon ma woon lamb ji rek moo ma ñor moo tax ma ne la mënu ma wax damay bàyyi ba lamb ji paase. non may ma li nga denc. non non li ma ba lamb paase ma mun la ko wax. ma ko waxulee fu ma lay non di ma gis yàlla dina dogalaat ñu gisante. yéen lan ngeen lan la naral Balla Gaye. non ko nar def moom xam nga wax boobu wax bu yàqu la. mu jaaroon mag ñi rek fa ñu jaar moom. doomu Double Less bi waaye doomu Double Less yooyu doomu dégg. ay diw la amul am nañu fi seen bàyyi nekk champion duñ champion. Balla li mu def moo ko liggéey ba yegg si fi boo ñaa li mu def moo ko liggéey ba yegg si fi am déet. waaw li si am solo mooy bés ba ku nekk la nga entraîné nga ñëw jëf ko moo tax ma ne lu ma mën a wax damay bàyyi ba lamb ci passé. waaw jërëjëf maa ngi lay yaa ngi ziar. maa ngi ba. koo faral Balla Gaye wala Boy Niang. man Pikine laa dégg na. doomu Pikine. waaw doomu Pikine ah. Ah. ñaan yàlla yàlla na ñu. waaw waaw incha waaw Boy Niang lu ma war a rek mooy Boy Niang Boy Niang xam na xam na ma waaw. ndam rek bu taay si la. kii mooy kii mooy bu taay si la nuyu naa la ziar. waaw maa ngi lay fay bu baax soxna waaw Boy Niang tey rakk. ñun waa Pikine ñun waa mbër ñun mbër yi ñu wa ñëw pour ëmb ko pour yomb mu dem daan Balla Gaye waaw ñun pare nan ñun boo xam ne ñun pare nan waa Pikine pare nan mais eh, pare génneewu leen ci de. Boy kii bala Gaye ndax xam ne am na combat. doomu Double Less waaw doomu Double Less ñun xam nga ñun miin foofu xam nga miin foofu miin nañ géejuwaay bu baax. ki le vainqueur de Yékini ngay wax de. dañoo miin Pikine dañoo miin. le vainqueur de Modou Lo ngay wax de. miin géejuwaay Eumeu Sène dugg na fa duggaat fa Boy Niang na fa duggaat fa kon miin géejuwaay. wala benn quatre waaw combat bi incha Balla Niang dafa dugg daan Sa Kajoor. waaw ñu waxati mu dugg fa daan les deux. Balla Gaye. na mer Balla xam na ne jeexal na. combat bii dañu koo jaral suñu bii lañ ci teg. moom démb nee na ma bakkanam la ci teg. bu ci tegee bakkanam Sa Kajoor baa ñun lamb xale. waaye ma ko Balla Gaye mageewu bari. ah Balla Gaye lu bari. waaw mageewu ñu lu bari mais après la ñuy wan ne Balla Gaye ne ko ñun ñun sa morom. Balla Gaye gaynde la de. lu mu doon gaynde bu ñëwee fi gaynde ñun dañoo pare tous les plans ñun waa Pikine dañoo pare lépp. tey cappa coli ba surtout Cheikh surtout Cheikh Yérim Ba. Eliane Thiel is back. ndeysaan tey borom kagul laa fi gis borom kagul de la àndal mu kaguleewu baadu kagul démb kagul la ba bu Balla Gaye indi ca la nga xam mooy face ba xalit kagul la indi te kagul dañ ko tere ci lamb Cheikh Niang ngi nale soxna ma doon way léegi nekk magu Boy Niang gis ngeen ko Boy Niang wa ngay ñëw Cheikh Niang moo ñoo ngay def seen xar foo xuufa ñoo ngay def seen xar foo xuufa eh, kagul bi borom kagul gaa ngi def li muy def borom kagul baa ngay def la muy def waa lii lan ko laalee Cheikh Niang sëtu Cheikh Yirim Ndumbaan baa ngay ñëw wala ba ko maal mooy sa xarit ma daawur ngewel ndeysaan cappa coli baa ngay ñëw moom booy ñaa ndeysaan ñëpp jóg nañ xale jëlal ma lii xoolal ma stade wane na ne sëtu Cheikh Yirim Ndumbaan bi mooy borom Pikine doomu ndey Ama Baldé mu am ama seen Pikine rii ma beneen turbine bi jëlal bële jëlal bële Xalil lii sa day daw xolal lii lii gëj na am ci stade bi lii waa Pikine dañoo pare eh. waa ba xolal ma kanji kanji daa kagu lewu tay kanji promoteur xolal leen génn di dem Boy Niang lay jëli Boy Niang lay jëli moom kañ xoolal kañ xoolal kañ kañjee ngi noonu mu ngay daw Boy Niang lay jëli moom kañ xoolal jëlal kañ jëlal kañ jëlal ma kañ tey saa naa ne soxna si bàyyi leen si jàmm wasaare. tey daa mel ne da ngeen a kontaan rek. waaw non yàgg na yàgg na yàgg na. da ngeen <laughs> ma. bu baax a baax baax boo xoolee ne xam ne Pikine Pikine waxuma la sax Pikine sax waaye àdduna ñu wàcc ma. waxuma wàcc boobu de yéen a ngi wàcc. non mais dañuy lamb boo xoolee lu am xew démb xam ne dañuy lamb pare nañ pare nañ. mais démb démb boo ñëwee daa daw. non yow daw nga gis daw nga gis bu nga gis nga wax ma. daa daw. non bu nga gis nga wax ma. lu ko tere. dañ ne lamb la. lamb foo wala yaakaar ni moo la ci mën a génne loolu ngay def démb convoqué nañ ñu. maa ngi dégg Balla Gaye wax ay rempli contrat yu mel noonu te ay rempli contrat yooyu amu ci euh, contrat bi loolu amu ci woon démb te c'est imprévu parce que euh, TFM boo xoolee sax nii gars yi def na signature fu nekk sauf TFM kon loolu c'est imprévu yaa ngi comprendre kon bu demee ba demee noonu euh, ñun kenn duñu saraxee comme ni ko suñu grand yooyu Pape Sarr kenn duñu saraxee ñoom lu ñu xalaat ñun fekk na xam nañ ko quoi. galaaju Balla yee tax daw wala. Balla bu indee ba muy gis nga gis nga léegi léegi léegi a gis kàngul ah Balla Gaye kàngul leen. mais Balla Gaye moo leen ëpp gàllankoor. ba bis ba ba bis ba bu fekkee ci galaaj la ko yaakaar barki maam Cheikh Rafal day daanu. Balla Gaye dàq mais boo ñaan li mu mëneegum ci ah, naa la. maa ngi lay fay. Père Bourkhane tey amoo benn jot. waaw non tey moom aw ma benn jot. mais léegi li ma bëgg rek ñu def ko mooy ma jox leen rendez-vous dimanche au soir ñu toog waxtaan waxtaan gu yaatu. dimanche waaw. waa dimanche ci ngoon. toujours lamb. waaw mais après lamb ji. après lamb. après lamb ñu waxtaan wu yaatoo yaatu. yaa moom lamb ji suur sama lamb la. sama lamb la. Père Bourkhane ji sama lamb la. yaay daan Balla Gaye. waaw maay daan kay. yow da nga looy xalaat. Ah, ah, loolu jarul di xalaat. doomu doomu doomu Double bi wax na moom li muy wax ba pare moom li muy wax nee na làmb ji da koy mbapat. waaw waaw kon kay moom définir na lépp. mais ma làmb sama làmb la làmb ji moom sama làmb la parce que euh, Balla Gaye amul dara lu mu ciy gagné man maay gagné man maay gagné man daan baala gay moo ma gënal nekk roi des arènes daan Balla ma gënal nekk moom fi ma ko teg mooy ci côté sport laa ko teg tegu ma ko ci mystique bi ci côté sport laa ko teg ndax am nañu capacité boo xam ne daan na Balla Gaye loolu moo tax ma jàpp ne tey ji am naa stratégie bu ko gagné. mais Père Bourkhane Père Bourkhane nga boowoo leen Balla Gaye doole ñaari yoon. non ëpp ko doole mais nit mun nga am capacité bu daan adversaire loolu kay yàgg nga koo gis. mais yéen a ko bu capacité. ñun am nañu capacité bu gagné combat bi ñaari doomu mbër la de. ñaari doomu mbër la mais dama ni. c'est par un entraînement intensif que le ñun en tout cas teg nañu sunu mbër boo xam ni bu jour bi jotee lecture rek lay def après mu jeex li ci nekk nag mooy Balla Gaye kenn mënul naatable bi mën a bëreem mais stratégie bala Balla euh, Boy Niang aussi kenn du ko weddi parce que am na journaliste yoo xam ni. posé woon nañ ma ces mêmes questions ci Sa Thiès ci rapidité Sa Thiès ma wax leen nag est-ce que yéen bàyyiwu leen xel ci rapidité Boy Niang mais au finish résultat bi gisoon nañ ko cette fois-ci aussi dama wax ne ji sama làmb la. père ñu ah, mu wax doy na waar nee na làmbam ji làmbam la. kii pare na de turam lay déglu maa la ko wax. waaye ñii nee nañ Balla Gaye tey mu rey la ñii dañoo fas yéene rey Balla Gaye Bamba baal leen dina xam ne lépp dëgg la yéen ñëpp taxaw ne bi nga koy xam inshallah eh, Balla Gaye du dara billahi wallahi Balla Gaye moo daan Yékini mi jël meilleur lutteur du 50 ak ñu doole ah ëpp ñu doole ëpp ñu xel ëpp ñu xaalis barki Serigne Bamba si làmb ji jour bi nga koy xam xaalis la ñuy jaay ëpp ñu xaalis si làmb ji barki Serigne Bamba jour bi nga koy xam yaa nañ yàlla suturaar bis ba Balla Gaye dañ koy feeñal tey dañ koy feeñal naxal waa Pikine ñooy papaam Balla Gaye moo leen ëpp doole non non mënu ñoo ëpp doole xale bu ndaw boo ñaa xale bu ndaw la non non li nga xam ne lépp dëgg la billaay ñu def ñu def Sadio lu ko raw lañ koy def billaay yéen waa Pikine yéen waa Pikine lu tax ngeen yëpp buñ paree buñ paree Boy Niang moo nekk maire Guédiawaye Boy Niang du paree moo nekk maire Guédiawaye maire Guédiawaye ah dañ koy xajal Boy Niang moo fay toog yow nee na nee na Boy Niang moo nekk maire Guédiawaye waay waa ji daa mel ni daa far de ay maru mare presque la waa Matu mais yow wuy ma waaw noo gisee bés bi tey waa bis bi tey jii li ko gisee mooy que ne euh, Boy Niang ànd naag ñi mu war ay mbokkam di waaj bésam fii ci Pikine te li mu war a def mooy lii di ko wax ni nag mu ngi waaj nag koo xamante ni ku ko waajul doo ko daan laa illah ku ko yombalal bis bi moo ko nax daa mel ni Boy moo indi wax Balla Gaye ci làmb Balla Gaye kenn du ko indi ci làmb Boy Niang moo indiwaat boppam ci làmb mais du Balla Gaye la indiwaat ci làmb ji de daa wax ba indiwaat boppam ci làmb ji waaw parce que Boy Niang dara xam nga ni daa def ñaari tentative yéeg ci kaw mu échec mais kon bii mooy daj dëppam il fallait que mu am lu mu wane boo xoolee contre Balla Gaye bi mooy premier combat di premier open press bu mu indi fii ci bi nii gis nga Boy li mu indi tay xale Pikine yi xam nga daa am way buñu daan wayal di ko wayal Kële ma naan Gris Bordeaux barki démb ñëwal ko Gris Bordeaux bii mooy sa. sa. bii mooy dernière chance am ci kaw. kan Bal Boy Niang. Boy Niang. Balla Gaye. Balla Gaye amatul lu muy prouvé ci làmb. non bu ñu waxantee dëgg rek. Balla amatul lu muy prouvé ci làmb bu ko Boy Niang daanee ak mu daan Boy Niang fi mu taxaw du fi jógee lenn kay mooy problème mooy Balla Gaye dafa dugg sept fois Pikine am fi sept victoire Boy Niang dugg. Guédiawaye sept fois am fa sept victoire léegi problème bi mooy. finaaloo yàlla. problème bi mooy Balla Gaye Boy Niang daa daan rakam ci sept victoire yi. ci septième victoire. voilà léegi nag Balla Gaye tamit daa am ñoo xam te ne ay nitu Boy Niang lañ mu daan leen tamit ci sept victoire yi. finaaloo yàlla. runkum daje la ñuy def. runkum daje <laughs> loolu final la ci diggante Balla Gaye Boy Niang xaaral ma demaat tuuti xool gis sama benn naataango foofu am nga chance. <laughs> ma ma ñu noonu. fay. na yàlla nangu. xam nga dama laa bëgg. man Ami Collé ma xam loolu. mais. yaw na ma dab parce que yàlla moo xam di boole. ngay sama rakk di jigéen di jàmbaar di ko nangoo liggéey. nekk ci milieu bu dangereux bu doy waar nag. maa ngi ñaan suñu borom mi dara teewul yal na yàlla sàmmal boppam. waaw waaw bis bis bis moo toll noonu. Boy Niang ak Balla Gaye date historique premier janvier xanaa xam nga cuune du ko bëree moo tax combat bi ku ne ne dafa yomb waxuloo di am du combat bu parce que l' expérience face à la jeunesse parce que ki euh, Boy Niang noonu Boy ci boppam moo toll noonu ndax Pikine c' est le grenier de la lutte sénégalaise ndaanaan bu ne mi ngi biir Pikine waaye Guédiawaye léegi nag làmb dafa tekki nag Balla Gaye moo ko fa indi loolu la yàlla dogal bul fàtte bésam ba ak Yaxya Jóob Yékini bisam ba ak Gris Bordeaux bisam ba ak Tapha moom Balla Gaye loolu doy na bés waaye bésu Boy Niang ba ak Dolf bisam ba ak Pape Sène ah bisam ba ak Sakadior bisam ba ak Lac 2 bisam ba loolu doy na bés moo tax ñaar ñiy bëre ñaar ñëpp ay mbëru dëkk lañu Géejawaay ak Pikine léegi dër bi dër bu doy waar. mais dafa mel ni kon kon kii ki nga xam ne mooy Balla Gaye revanche lay ñëw wut si. waaw revanche bëre ah, Boy Niang Boy Niang dafa dugg këram nag. de Boy Niang da ko ne ko dama ne la Boy Niang dafa dugg këram te Boy Niang dafa miin géejawaay léegi nag Balla ndax dina dindi tuuma moo jaaxal ñu bari. li ma jaaxal de 7-7 la de dafa mel ni la fi finaalu la bii mooy final bi géejawaay ak Pikine ñaari xale yi ñu ngi bëri combat boo xamante ni combat amateur yi la surtout les sénégalais de la diaspora combat bi amateur yi dañ ko yàgg dañ ko yàgg xeex. tey mu tax mu am tey ngalla nañ ko bëri ci fulla bëri ko ci fayda bëri ko ci fair play ñu bëggal amateur yi parce que combat la boo xamante ne gars yi ñu ngi ciy xeex xaar xeex waaye xam naa ne ci bëri lay jeexe parce que ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan la ñu xam nga Balla Gaye bu jàppee day bëre waaye booy ñaa bu takkee booy ñaa bul fàtte ne attaquant bu dox ci kawam yaa ngi ci erreur bu mag parce que booy ñaa bul euh, Balla Gaye bul fàtte ne ñëpp xam nañ ne attaquant la saabu anticipé day dox ci kaw adversaire mais est-ce que bii Balla Gaye dina dem jëli Boy Niang parce que Boy Niang fooram yëpp mooy mu taxaw léegi toog yow yóbbu la latéral nga daw fekk si ko mu def mëninam noonu la man moom Boy Niang kenn du yow. ana gàllankoor lu ñu wuti. nañ fële ba morceau jigéen laay jigéen. kii jabaru mbër laay jël jabaru mbër. ana gànna gànna loolu jeexagul ana gànna kay nga fële ba mu mos a. sama xarit nuyu naa la lay may ma la lay ma la la mi ngi fi mi ngi fi. jabar mi ngi yàgg a a de forme la nekk. mi ngi si forme léegi bu ñëwee di ngeen ko gis incha allah. nan ngeen nar a bëree tactiquement ndax ku la xam ne xam ne doo tuune. nan ngeen bëree tactiquement loolu lu ñuy wax. xam nga xam nga li sonal gars yi mooy yàkkam ji ku si nekk bëgg nga xam booy ñaar lu def wala lu baax la waaye yàq bawul dara liñ doon xaar ay at ko xaar ay weer yegg bëgg bëgg bëre bañ bañ bëre ñun waa Pikine dañuy teg jeexal si combat bi. di lu jaaxal booy ñaar fu mu ne kenn mënu koo gis. mi ngi ñëw léegi ngeen gis ko yéen ñëpp xoolal ma loolu nee naa leen sëtu Cheikh Yérim Ndumbaan baa ngay xeeñ waa Pape Sarr fu mu ne ah waral ma Pape Sarr kañ dem ñu wari Pape Sarr nañ dem dañoo war a jóg jàppale rồi với dương xuân mừng kagul mi dara tey yal na yàlla defal nit ñi ñu sedd bi yal na yàlla defal nit ñi dans quelques minutes drapeau Pikine ba. dégg nga la. ma direct. kii blessé wu kii doole. abu ah, nga ne. ma ne kii blessé wu de. foo wekk loolu abu. Eh. abu foo wekk loolu. kii blessé wu. ah boo ñaari loolu ndeysaan tam la sàbbee la. doomu Dégol baa ngi noonu ak booy ñaa ngi noonu doomu Dégol booy ñaa ngi noonu ndaysaan doomu Dégol c'est tout seex Yérim Ndumbaan ngi noonu mooy booy ñang de avec Golden Dolphin fa ngi noonu le vainqueur de Pape Sène Sane le vainqueur de Ngis le vainqueur de Aïkon le vainqueur de Les 2 le vainqueur de Brise de Mer kookoy Boy Niang 2 waaye tey ka muy bëreel kookoy doomu Double Less Maxi Sanchez de Samba Lap le vainqueur de Tyson Junior de Yàlla si Sane moom Boy moom Balla Gaye 2 waaye tey Boy Ali 2 qui a marqué le quatrième. Qui a marqué. Wanyang dëgg la ndeysaan. Boña def na 100 mètres. oh Boña na 100 bu dëgër. mooy bu dëgër lii 100 la wala ñaar fukk. 100 mètres bu dëgër moom Boy Niang 2. soo xoolee. mooy gis. Fala ngi fi Malaw ngi fi Malaw Malaw daan Tambala ngi noonu Malaw daan Fala Kalmu Ndour Grand Mbagnick Dégol Senior ko may seen daan Boy Séeréer a ngi noonu 2 maa ngi koy seen ngi seen param 2 mbay faal maa ngi koy seen seen deux ngi noonu ndeysaan ngi noonu si wet ay waay lan moo ñuy rey ay waay lan moo ñuy voilà ay Kolé Garaaf la waajal ci doomu Saloum saan gis nañ ci Zambala gis nañ ci Cheikh Niang gis nañ ci Malaw gis ci Boy Séeréer seen naa fa Param 2 seen naa fa bu Kër Mbaye Fall saan taalibe Cheikh la Cheikh Saad baa ngi noonu setul Cheikh Yirim baa koy Boy Niang 2 san le vainqueur de Ngis le vainqueur de Aykon le vainqueur de l'Est 2 de Sakadior le de Bo de Sathiès le de Gouy waaye le vainqueur de Dolfou le de l'Est 2 le vainqueur de Pape Sène le vainqueur de Brise de Mer le Kër de Garga Mbossé da koy Boy Niang 2 Star Boy Niang 2 Star Boy Niang 2 gi noonu c'est du

nga ne maalaw mi dootul yett ndeysaan kanjee ngi noonu di dem kooku dox di dem mooy kanji gin rakin gin gin gin rakin tagin Boy Niang na tay ngeen Boy Niang

sa dugub ndeysaan moo waral laalee ku ñuy wax marle ku jur Babakan moom sooxu sooxu a ngi noonu ndeysaan kon ak Pikine gaa ngi noonu nee na nee na saa nee na deretu Pikine ay dox sooxu nee na deretu Pikine ay dox ànd ak jara de Boy Niang 2 kon baa ngi noonu kon nag Pikine ngi noonu mooy Boy Niang setu Cheikh Yirim baa ngi noonu waaw setu Cheikh Yirim ñu baan oh, doomu ana baa ngi noonu setu des ak mu dasiru mooy jarbaatu des ak mu dasiru mooy Boy Niang Gana Diop mooy dëgg kooku nekk ci sabar gi mooy Gana Diop Gana Diop a nekk si sabar yi ndeysaan moom suñu sutura la gaso bi tax na kenn yëppatuñu ngir yàlla ku kenn taal benn fusée seen nga tudd xaw ma ministère affaire yooyu ay pétard ak yooyu xaw ma ministère xaw ma fusée seen bu ko kenn taal very nice nañ ko bàyyi mu nice

xaaral mi ko sànqal bi ñëw na ñëw na ñëw na am. waaw. la nga am. waaw. xaaral jël ma jël ma wala. fooy yéeg fooy. waaye jàpp jox la beneen micro beneen micro bi. waaw macha allah macha allah macha allah jox ko mu ubbi rek jox ko mu ubbi comme mooy géwal jox la. dama lay ubbi rek. da lay ubbi noonu lay demee noonu lay demee baax yi tànk rek Lamine incha allah. Lamine. Lamine. Lamine xam nga daa bëgg rek waaw da ngay taxaw nii. waaw léegi loolu kay mos de waaw dundal leen. Mamadé Mamadé Mamadé dundal. voilà. léegi jeex na yéen kaan ñi yéen a yor micro ñeneen yéen kaan. am na jox leen micro yi dem dafa am lu may wax rek dama lay jox micro. bu joxul sa micro ñii moom jeex na. amee. takkal de. jërëjëf. دامات من شر ما خلق والدمير واو اوكي معروف المخ يا ساوي يا ساوي Thank you. waaw ñoom mënoon wax seen micro yi central bi nga bàyyi kàmb. non joxal fenn après nga jox ñu ko waaw. après bi ngay bi léegi yéen bu ngeen paree rek. ma drapeau waaw mbir laa bëgg a may ci sax parce que man dafa ma bëgg ñu perdi benn mbir boo xam ne dafa tëb rek dem. da taxawal nii du nga taxawal nii. aywa aywa aywa aywa. ma ne mooy ñëw mooy ñëw. bay bal. léegi nag dafa am ay jeunes communicateurs. traditionnels nee na ñu nekk biir Pikine yoo xam ne dañu indil. ki nga xamante ni moom mooy. Boy Niang drapeau bi ngir jëmmal bis bi nga xamante ni mooy bis bi. Alpha Boy Niang. salaamaaleykum Baye Balla maa ngi lay nuyu. gars yi mu gaaw rek di am mbégte ak contentement bu rëy. soo leen gisee drapeau bi tey ñu indi ko. dafa nekk loo xam te ni symbole Pikine la kii kenn mënu ko génne ci Pikine moom ay rakam ak ay magam kon tey association des jeunes communicateurs ñun ñëpp doon ay xale ñëw wane sunu njàmbaar ak sunu kattan jël raayo boo xamante ne raayo Pikine la indil ko ko nii loolu nag yaakaar naa ne sedd xol la Boy Niang ñun sa frère ñun sa mbokk ñun sa lépp ñoo la indil drapeau bi jox la ko wala yaa ngi ci ginnaaw Pikine jëlee drapeau sa ginnaaw Pikine jàpp ngi sa ginnaaw Pikine jàpp ngi sa ginnaaw léegi nag jërëjëf gars yi bu baaxee rek ñu dem ah jërëjëf Baye Balla jërëjëf mbokk yi jëf gaay pare ngeen pare ngeen mbokk yi jërë jëf mbokk yi ñu ngi leen di ñaari xeexkat ñaari bërekat ñoom ñoo war a daje tey le premier janvier fële ca muy Boy Niang ak Balla Gaye numéro bi tey ñu ngi fii ci open presse Boy Niang Boy Niang ñu bàyyi la ak ñi nga xamante ak suñu ay ñaari waajur ñu ngi nuyu waa kër Cheikhna Cheikh Sadou Abi ñu ngi nuyu waa kër Cheikhna Oudou Mbaye waa Pikine bu baax a baax a baax di nuyu autorité yi fi teew suñu ci yoon bi gis nañu gis Jara mi ngi ci yoon bi gis nañu mu teew gis nañu Isaaxa Diop gis nañu autorité Pikine yëpp ñoom Thierno Ndom Ba bu ñu limee dañuy juum gis nañu autorité Pikine yëpp ak 200 pour cent Pikine bi suñu ay papa ñu ñëw taxawuñu bu baax gis nañ ko suñu frère yu tamit ci seen taxawaay bi ñu ñëw ak ñu ñëw ñu ñëw tamit seen xel ak seen xol yëpp mu ngi ci ñun ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñuy doomu Pikine yëpp di leen bëgg bu baax a baax di kontaan di nuyu journaliste yi di leen wax masa coono bi ngeen fi daj yëpp incha allah boo ñaa balaa ñu lay laaj benn lay laaj nga dugg si biir stade Alassane Diouf nga gis stade bi clôture Pikine yëpp topp sa ginnaaw loolu ba mu gisee ban yëf yi nga am waaw dañuy sant rek parce que man doomu Pikine laa ñu fi teew tamit ay doomu Pikine lañu te xam nañ ñoom bu baax Boy Niang parce que mooy commencé sama carrière ba léegi fi laa commencé fi laa defee lépp lu ma am ci làmb fi laa amee donc xam nañ bu baax xam nañ i grands rendez-vous bu nga tegee sama loxo damay def fulaak fayda ak jom joxe sama bakkan incha allahu rabbi mais dafa mel ni grand rendez-vous muy tafaat bi la teg grand rendez-vous waaw mu ragal waaw àdduna noonu la bés boo gis ak bés waaw am na bés bi jaaroon waaw bés boo gis bés lay fay waaw. te wax baaxul daal wax baaxul waaw waaj nañ de. Hmm. waaw waaj nañ bu baax a baax a baax. wax baaxul te combat bi ñëw bu baax. comme li ma waxoon rek. waa ji ñuy jox bakkanam war a suñu bakkan incha allah rabi waaw suñu papa Abdoulaye Timbo monsieur le maire de la ville Abdoulaye Timbo suñu papa vraiment on est fiers de vous merci beaucoup. monsieur le maire Abdoulaye Timbo. le premier magistrat bu ñu xaar ko ah. Lamine waaw léegi xaar booy ñaa booy ñaa waaw. jox mu dugal ko après xam nga Abdoulaye Timbo bu leen fàtte ni le premier magistrat de la ville kon bu booy ñaa amee combat mu teew il faut ñu jox ko micro mu dalal ko. kon monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu. doomam kay mënuma jël maa ngi nuyu waa Pikine yëpp. di ci teel bi dëkkoon li nga xam ne mooy Baye Boye Niang waaye di nuyu champion Pikine yëpp. tey jii Boye Niang di waajal combat bu rëy. waaye taxawaayu Pikine rafet na. kon la jeunesse de Pikine yëpp maa ngi leen di féliciter ci ni ñuy taxawee ci ni ñu mànkoo doon benn. ànd ak seen i champion incha rabbi ñuy ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ndam le premier janvier ñu gàddu ndam li indi ko fii ci Pikine Pikine yi feete ko te incha allah yàlla dina ko def boo ñaan félicitation ndam ci kaw ci kanam incha bu jeexee rek jeex yaa koy wax boo ñaan bu jeexee rek jeex na ah, ah, incha allah yàlla yàlla may ndam Abdoulaye Kane moom moo fi teewal Issakha Diop. le premier ministre ñëw na ñëw ñëwal. ñoom tamit ñëwal carrément ñëwal. yaa ngi bàyyi ba boo ñaanee. léegi am nga combat bu mag ndax ki ngay dajeel ki ngay dajeel champion ki ngay dajeel fenkat la bërikat la est-ce que Boy Niang pare na pour attaquer Balla Gaye xeex ak bëri xaw da nga ne ki may dajeel ndaanaan la waaw ndaan bu dofee ndaan na koy faj ndaan bu dofee ndaan bala moom xam na ne am na adversaire waaw am na am na booy bu décidé bi laay walaay am na booy bu décidé bi laay walaay dañuy jëflante de dañuy jëflante bu baax a baax incha allahu rabbi boo ñaa day dem wala day taxaw lépp laay def lu may def nekkul yow laa koy wax nekkul presse bi laa koy wax loolu sama affaire bu bopp la comprendre nga mais lépp laay def nga xam ne moom lu muy indi fekk ko fi lu muy indiwul mi ngi fi incha kii boobu mooy sax combat bi taxaw may fu bopp la lu tax loolu bu ñu nekkee ci géew bi maag moom kese la kenn raxul yàlla xam na comme li wax ne ku mën sa borom duma waaw bu ma jekkoo bu ma mooy de ma ko jekkoo du ko mooy yàlla am benn en bu am sa diggante loo amul en loo amul en waaw comme ni waxee rek amul en yaa ngi babal amul at lépp laamu la du weesu laam waaw waaye boo gisee wax loolu mooy moom lu mu amul de. li mu foog. Balla. lu amul bu baax a baax booy waaj na bu baax a baax incha allah laare maa moom nañ laare bu ñu laare pare moom dina xam kan mooy booy ñaa incha allah. temps yi groupe bi bëri ci ci combat bi booy ñaa dafa blessé Balla Gaye dafa blessé ba démb ngeen waroon def seen dernier face to face ñu gis sa adversaire yow yow gisuñu la xalu jaxasoo lan moo war a sa sa sa ñàkk a teew démb te sa staff yëpp teew. waaw amaa loolu damay damay dalal sama xelu supporter rek maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dëgg dëgg dara jotuma maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi sama rukk di liggéey ak sama staff nekk ci li ma war nekk comme ni ñu koy waxee face à face démb bi nag li may njëkk rek mooy dama njëkk a jégalu Modou Lamb jégalu promoteur jégalu ñëpp parce que ku am boo ñaa xam ne ku am respect ci promoteur la ku am respect ci doomu aadama la ku respecté contrat la waaye damaa génnoon moom woo naa promoteur bi dégg naa ak sama staff ma yi ma te yabal leen ñu teel a jiitu pour wan ni leen ma gaawoon du ñëw yegg si ma yegg si naa sama adversaire ci la quitté ñu woo ma na ma ne kon baa ñu ñibbi loolu rek moo tax heure rek parce que dañoo génnoon ñu nekkoon ci yoon waaye ku xam boo ñaa xam ne ku respecté contrat la mosuñoo ñàkk fayda ci contrat mosuñoo def loo xam ne waruñu ko def comprendre fu ñu woo parce que man ak adversaire bi yu des yëpp ay détails comprendre maa ngi jégalu di jégalu mbër yi di jégalu axlu làmb di leen wax ni boo ñaa ku respecté contrat dafa nekkoon ci yoon rek moo tax. sa ñàkk a am yëpp mooy moo koy def mooy xeex mooy bëre mooy duma mooy daal. waaw loolu waxum bokkum rek. waaw bu énervé wala mu ñàkk énervé li ma ko waxoon rek moom Balla bu amee lu mu guuxal booy ñaa jarul yàkkamti abi dafay sifflé génn suñu diggante man ak moom ñu jëflante la ma ko wane foofu man li ma ko guuxal ma wane ko foofu jarul wax ju bari comme naa mbele mbele coow naan nga moom bu amee lu wala bu amee lu mu wala man damaa man moom benn histoire boo xam ne histoire ranki bu yàgg dañuy tëj ñu soufflé man ak moom ñu jàkkaarloo ñu jëflante comme naan nañ xam kan mooy kam incha allah rabi. booy ñaa ñu gis mu booy ñaa ñu gis signature bu njëkk bi mu mel ni Balla daf la tànn benn la loo xamante ni euh, daf la daf la wax loo. deuxième signature bi nga ñëw réservé lan moo waral dellu ginnaaw bi. non non ah, dellu ginnaaw amul dellu ginnaaw. dellu ginnaaw du amul fii. lamb communication la yaa ngi dégg Lamine yaa ngi dégg yaa ngi dégg Baye Balla amul ah. dellu ginnaaw ci wax làmb communication la làmb jëf la comme naan li may communiquer ak li may jëf loolu man la concerne loolu du mbiru boppam le fait que ni may bëree wala waaw loolu waxu boppam la loolu waxu boppam la kon li wax yaa ngi dégg Fadel loolu waxu boppam la yaa ngi dégg dañ ko dëpp micro Boy Niang ziar waaw waaw di la laaj question ma lay laaj mooy par rapport ak combat parce que saa mel noonu ñu seetlu ne dernier signé Pikine bi da nga mel ni da nga ne combat bi yow doo too sax def loolu li nga maanaam. non du loolu sax dama ci biir wax mu jox ma combat bi mu ne mu may xale na bëree na def lépp ma ne comme may xale kay oto combat bi kon dafa war a métti comme yàlla comme man may xale combat dafa war a métti dañoo war a bëri 15 ba 20 minutes yoo xam dañuy xeex di bëri di nàkk di dem nañ xam déglu ma ñëw bu ko defee nañ xam kan mooy xale ak kan mooy mag loolu moom bu yow mu waaj ko dañuy xeex di bëre di gaañ di dem ñëw loolu moom day soof combat bi dafay métti parce que yokkul combat bu ñuy saasaaxee ay rëbb ku nekk dem ñibbi loolu dafa yomb combat premier janvier la day métti day saf sap ma ak moom histoire bi dafa gudd yaa ngi sib déglu ma ñëw histoire bi dafa gudd yaa ngi sib waaw ñuy sant yàlla yàlla mooy lépp waaye foofu ñu jëflante incha allah maa ngi sant ñëpp nag gars yi gars yi gars yi Lamine maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. muy drapeau Pikine. équipe nationale moo doon génn wala équipe ni nga ko rek loolu mi ci kontaan rek dafay ko may waajal bis di génn. Pikine yàgg na maa jox drapeau mais bii dafa symbolique rek ñu def ko mais yàgg di représenter Pikine fu mu mënti doon di ñëw di teg sama bakkan comme daa mais bii ñoom dañ ko boole def ko lu affaire bu naa jox ma drapeau comme ni ñu koy joxee Ama Baldé sama frère comme ni ñu koy joxee Moussène comme ni ñu koy joxee Sokh ak booy mbër yëpp ñi am combat ñu leen ñaan suñu leen ndam ñi ñu naan ñu leen félicité comprendre nga comme ni ñu koy waxee rek dafa nekk lu symbolique rek fu may dem Pikine daay représente hmm. Pikine moo nekk sama deret comprendre nga loolu amul masawu ñëpp képp koo xam ne nga fi daj ci coono maa ngi masawu baax di ñaan ñu tan ñu ñëpp ñu fekkee le président bi kenn bañ a gaañu yaa ngi dégg moom mi mbër bi sama adversaire danga koy ñaanal jàmm ak ñu ma àndal yaa ngi dégg ñu xam ne sport bi fair play la ñu ñoo bokk ndey bokk baay Pikine géej waaye maa ngi laata lool amul xeex amul xuróo amul sànni xeex amul yóbbu jàmm stade amul yàq dara ku nekk rek na nga ngam sa mbër nga wóoru ko nga baa ko mu suñu géew mu jëflanteeg waa ji comprendre nga li nga am pour wax ko nga wax ko waaw bu jeexee jeex maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi sant maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Abi maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Wuldu Maamin maa leen di nuyu bu baax a baax ak képp koo xamante ni mi ngi jàppale dama ñaanal bu baax a baax mobilisation bi jarul wax comme ni nga wax ñun dañuy njaab rek dugg yaa ngi gën a xam ni fi ñëw gis leen fii ñu feesal fi dal ñoo ñëpp jàppal ni dañuy njaab dugg comprendre nga mais ci jàmm ak salaam laa woote mhm. non violence jàmm ak salaam waaw ñiy jëfante ak ñiy xeex maa ngi moom allah ku sa morom ku jekk sa morom yaa a xam bu jeexee Babacar Babacar sama xarit bi kontaan naa ci yow de Lamine mon ami mon frère oh un grand monsieur Babacar bàyyil micro def jox ma sama micro Lamine jox ma sama micro foofu balaa moo Lamine bàyyil micro seen lamb kan moo ko moom seen lamb seen lamb merci Babacar

Come on, B. Come on, B. ndànk ndànk oh.